والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما وتمجيدا لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى مغفرته ورضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه بكي بنبو سنتي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 àgg ci sax ñaar ñu dem bay tàggoo kii war a dem ne kee war a dem ne dañ koy joxlante ñaare te muy baat yu diis muy baat di ñuy wax mucc ak xéewal luñ min la euh, ngir dem ci bokk yi bu ñu demee ba àdduna ci boppam xew-xew yi ci am bis bi sax dara xew nit ñëpp wax jëm ci bu taxee nit fàtte li fi indi woon ba muy foye yi nga xam ne kenn waru ko foye aaja nañu fàttaliku lu taxoon yàlla indi nu fi ndax xew-xew yi xew ba nit ñëpp dëgmal ko ba kenn talatu dara la buñ ci joxee misaal ci aw yoon lu mel ni ab tëli ci lañuy xam ne yenn xew-xew yi amul njariñ bokk yi ëptali jamono bu ci nit ki jaaree li ëpp ci nit ñi bokk ñu ànd ak seeni xel day mel ne yitte moo lañ ko tax a teg moo lañ tax a jël yoon wa waaye su fekkee ka tegu ci yoon wi dane moom day topp tali bi ba mu jeex tàkk amul soxla ci li muy romb bu demee ba àgg ci dëkk dana xam ne tali bi jëmut fenn xanaa kenn ku ci nekk moo cay jaar ba fa muy ak fa muy fa muy wàcc mu wàcc bàyyi keneen mu jàll da jaar ci ab tali jëm dëkk bu sori saa boo doxee mu wan la ñaataa la dese ba yàgg mu ne dugg nga ci dëkk bi nga àgg ci biir dëkk ba gis fa aw sel ay sel mu bindal la ne la yoon wi moo jëm barab sàngam yoon wi moo jëm barab sàngam yoon wi moo jëm barab sàngam soo amutu tànn xam la la taxoon jaar ci yoon wi bëgg a topp tëli bi rek tëli bi moom jëmul fenn day wër rek loolu mooy soxlay adduna yi ak yi ciy xew tey wëlbati nit ñi lekk-lekk léeg-léeg war nañu fàttaliku lu ñu fi andi woon bokk yi bar yooyu mucc xéewal lu jafe la mucc mooy alfawzu xéewal mooy annaim mucc nag ci lan am na ñoo xam ne yoon woowu ñu jaar ba xoolatuñ dara lu leen di àggale fañ jëm képp ak nu ñu fa mën a àgg képp lañuy xool lañ bëgg a mucc mooy ba mucc ci bañ a jot ci lañ soxla kese am na ñoo xam ne bu ñuy wut xam-xam dañuy fas yéene mucc ci bañ a xam jëm ci xam mucc ci bañ a xam am na ñoo xam ne bu ñuy wut alal lañuy ñuy fas yéene mucc mooy ñàkk ak ñàkk la ñuy fas yéene mucc am ñooñ rédig yaram lañ am fu ñu leen ne ku fa dem faju dana leen ko jaral ndax lañuy bëgg a mucc mooy ak wérid lañ bëgg a mucc waaye mucc dëgg dëgg dëgg nag moom ak xéewal gi ñu koy booleel lu mat a déglu ci ab jullit la ne lu yomb kañ la nit di am mucc ak xéewal mooy bis bu ñu séddalee téere yi ba kenn ku ci nekk jot ab téere nit ki ci boppam kañ lay mucc mooy bu gisee ne diw ñoom seeni téere kat danañ ko joxe ci seen ginnaaw moom ñu tàllal mu tàllal ndeyjooram ñu tegal ko su boobaa mën naa am yaakaar ne mucc mi ngi tàmbali yàlla nañ ci yàlla boole ñu ne ko suñu borom ne ko iqra kitaabak kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba mu mu liir ko liir mooy xool ko ci suuf laa mu ko yëkkati ca kaw bu ko xoolee ci suuf mu mel na mu war a mel na mu ko gënale fa yaqulu ha umu qra'u kitaabiya kaay leen ñu àndandoo jàng lii ñu ma bindal ngeen dégg ko tàmbalee wax ca kaw su boobaa dox na jéego yu am solo jëm ci mucc nangoon a téeréem ndoxam day jooram jàng liir ko ci suuf moo yër ko yëkkati ko ca kaw ñépp dégg aya boobu fa yaqulu ha uma qra'u kitaabiya inni danantu anni mulaaqin xisaabiya fa huwa fi iishatin raadiya fi jannatin aaliya qutufuha daaniya ñaareel ba euh, bala mu àgg foofu bu ñu ko dencee ba noppi li may wax ni ci kanam la nekk li tax ma jëkkee ko bu ma ko jëkkee des na déglu ku ne bëgg ku ne war na caa bëgg bokk waaye fii fii tàmbalee mooy mu ca xéwal dëgg fi ko nit ki tàmbalee ñame mooy bu ñu ko dencee ba ba ne wënañ dem mu xool li wër bàmmeel bi mu naat lool mu xool ba bëtam yam lépp neex xool mu gis ay laltu ak i tàppi yoo xam ne mosu koo gis mosu koo dégg xet ga cay génn te su bokk yi suñuy tàppi yi ñu amagum léeg-léeg pënd ba say nekk di soj nit ki wala mu di ko jox jeneen tàngoor ak a wuuteeg yooyu étape bi waaye nag mu tàmbalee gis ñuy solu colom waa aljanna ba yàgg ñu jox ko ci mu sol su boobaa am xelam dana dal ci wóor na ko ni fii mu jëm yàlla aw doxinam lépp kanam la jëm yàlla nañu ci yàlla boole su boobaa da dana ko wóor ne mën naa ràññee ñi ko doon wétli ci àdduna ni ko loo dugg ñu dugg ca kese kese te nekkul ci seen xol ya ak ñi nga xam ne dañ ko daan wax loo dugg ñu dugg tam nekk seen xol day daal tàmbalee wétliku ku ne di ko ndokkeel suñu borom moo ko jëkk a ndokkeel mooy suñu wax ci alxuraan naan kulu washrabu hanian bima aslaftum fi ayaami alxaaliya mooy wa amma man utiya kitaabahu fa amma man uti kitaabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitaabiya ba àgg ca kulu washrabu hanian bima aslaftum fi l alxaaliya ka ca topp topp ca wa man uti kitaabahu bi shimaali yal kon nit ki mi ngi jëkk a dalam xel ci biir bu nit ñi dencee ba ne wërëñ waaye bis bi ñu ko joxee téere mu dàng ko ci suuf jàng ko ci kaw ñépp dégg mu jéggi jéego bii nga xam ne mooy jéegoom bu mujj bu ko jéggee jéggi na siraat mu xool tiit ma ak natt bu metti ba ca ginnaawam ak natt ba peese ba ak siraat ci ginnaawam muy gis ñoo xam ne ñu ngay yat yati di ko jéem a jog gi di tarxiis di daam su boobaa nag dana xam ne fa dalika al fawzu al azim maanaam mucc na mucc ko gën a mag dangay gis koo xam ne dañ koy tàccu di ko ndokkeel ci mucc gi nga mucc ci ñàkk la nga doon xëccoo am nga ko waaye nis tuuti bu dee fawzi itam fawsun saxirun saxir xam na ne am na fu muy yem diggante boobu nag jërut ñaaw waaye bokk yi loolu itam fa dalika huwa naimu alkabir al azim eh, kulu washrabu hanian bima aslaftum fi l ayaami alxaaliya li muy tekki mooy yàlla nee na mi ngi leen di ndokkeel ci fii ngeen dugg te bokk yi sirat ku ko jéggi aljanna lay dugg mi ngi leen di ndokkeel lii ngeen di lekk fas ko yéene tàmbalee lekk di ko naan te du jeex mukk maa ngi leen ciy ndokkeel ndax li ko waral mooy ba ngeen di dund ca ad ca àdduna xew-xew adduna mosu leen a man a wàññi mosu tax a gestu mooy bis ngeen amee doole bis ngeen amee do bis ngeen amee doole am alal amuk wér da ko jaayoon yàlla mu jënd ko njëg gaa ngi ni jar na bokk yi nag al fawzul azim wa naimul mubin wala al naimul kabir ak nu mën a tudd ci mat nit mën naa dox jëm ca kii dox jëm ca nag mooy koo xam ne benn xew-xew adduna mënu koo yóbbaale lu adduna ji yëngutu yëngutu lu xew-xew yi bari bari saa waree walbatiku dem jaamu yàlla dana ko bàyyi dem jaamu ji yàlla bokk yi ñaata bis la ñuy woote yoo xam ne waxtaan nañ ko lu bari dañ naan addunaa woote rek wootee xew ma woote rek ñu wuy si ko waaye nag duñ fa waajal sax foo xam ne fii bu waxtu julli jotee ñu mën faa julli moo tax kiy sàkku dëgg-dëgg naa yi muy xéewal gu du dakkati ak mucc gu sax mooy koo xam ne lu mën a nekk su waxtu jaamu yàlla jotee mënu ko fi ñëpp yi nga xam ne bukkut ak ponk jaamu yàlla yu mag yooyu dañ koo jëlale waaye yi nga xam ne dañ leen sopp nañ ko ko def képp yam ca kenn du ko ca man waaye fépp foo xam ne dañ ne lu baax a nga fay dañ ko fa gis dañ ko fa miin te du soxla ku koy tudd lu mën a def lam cay soxla dëgg-dëgg mooy yàlla fay ko rek yàlla nangu ko fay ko ca fawzul mubin ak naimun azim wala kabir kon li ñuy wax ni yomb naa xam bokk yi ku tabax ku taxaw ci armel waxuma nag armel dëkk yu mag yi nga xam ne dañuy tabax ci biir armel yi ay njëndi ku ne di wane ne maa la gën a rafet la waaye armeel yoo dox ba yam ca képp ci dëkkub àll dëkk bu dëkkub kaw bu ndaw néew na nga mën caa xàmme borom bàmmeel bi moo dëkkoon ci kër gu rafet gële wala moo fi yoroon ndobb tànk sàngam wala boog mooy ku siiwoon ka boo ko xamutoon doo ko xàmmee ci bàmmeel waaye moo fi doon def nit ñi lii ndax ndobb ak tànkam ga wala yaxam bu rëy ba doo ko xamee ci bàmmeel yi kon boog gannaaw mënu ci xàmmee ka dëkkoon ci kër gu rafet ga ak ci dëkkoon ci kër gu ràpp ga mënoo ca xàmme borom tur wu siiw wa ca lam doon liggéey ak ki nga xam ne lam mënoon di ko liggéey ko su ñëw kenn xamu ko woon ba ni mu fi bàyyi ko doo ko xàmmee ci bàmmeel waaye li mat a fexe ba wuute kook say moroom mooy lay xew ca bàmmeel ba ak gannaaw bàmmeel xam ne kër gu rafet genn ñaar yatt ba mu doonu lim ndombay tànk yu bari ñu ràng ko kenn alal ju bari njabar gu sakkan duñ ci boole kenn duñ ko boole kenn di ko denc moom képp noonu muy wéete ci néegam ba tëj appartement am tëj buntu néegam sàng noonu muy wéete lay wéete ci bàmmeel jëfam rek moo ko fee fekk bu fekkee li mu fi nekk woon lépp man-manam ba lépp ci lu baax la jëm dana am alfaws wa naim mucc ak xéewal bu fekkee nag kattanam googeeg doolam googeeg da ko jëmee woon ci leneen loole dana am dara alxusraanul alim lay am pertaange ju metti perte képp dafa doy met mettit waaye alim gu metti goo xam ne tàggoog moom mukk yàlla na ci yàlla musa léeg nag nit ne nit ne euh, wax yi wax ji tàng na wala metti na euh, dàqonte nit di wut mucc ak xéwal buñ ne kenn mënu ko am rek tayal tam waaye fa ame amee njariñ mooy jamono bi waaj amee jot fii fa mu njariñ mooy nit ki am na jot man na dara sañ na dara muy def te yàlla tax xam ne séqu ko ak keneen ku dul doomu aadama yi kenn ku ci nekk mu jox la cër ba mu la war a jox la lam la war a sédd su ko kooku séddee ak ku ko su ko kooku séddu su boobaa mu ci xéwal gi ñuy kaf ci mbedd mi di ko waxaate moom fañ ko soxlaa mën na koo am te dutu ko ñàkk yàlla na ko yàlla defal bokk yi xew-xew yi day li nit akuk jaamu yàlla benn ñëw leen ñëpp ñëw waaño luñ fa ay waajukaay wutuñ ndox mu ñuy jàppe teg fa wutuñu ay sijaada teg fa wuti wutuñu tànnuñ ci mbooloo mi koo xam ne bu ko fi waxtu fekkee mën a jiite su ko fi du fekk ñu wutal ko ay nawaam waxuma ay nawaam de da ngeen ñëw diw mooy naayibam naayim naayib mooy koo xam ne bu kii nee diis mu tege ma ñu tànn ci mbooloo mi ñoo xam ne ñëpp ñoo maase bañ fay nekk ba waxtu julli bi jot waaye wooteel lislaam wooteel diine topp xew-xew yi naan suñu àggee bu ma àggee def ko am gros lépp wala waxtu wi des na waxtu wi bu desee it ku desal buy jeex ku fi fekk ku ko xam moo tax war nañuy fàttaliku li ñu fi yàlla indee daf ñu fi indi ngir ñu tabax suñ kër ëllëg ya daf ñu fi indi ngir ñu fexe ba suuf si bañ a ràpp rappal suuf si mooy bañ fay daamu yàlla huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha wastaamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tuubu ilayhi mooy kam ko doon waxal ab yonent la wa ila thamuda axahum saaliha qaala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru huwa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha moo leen indi ci suuf si ngir ngeen dundaleel ko suuf si suuf si jaamu yàlla moo tax ñu sàkk ko waaye nit ñi nag la fi teg ñu nekkal ko fi nit nag fu ko way nekkal dafa war a nekk waxuma la muy bëgg ndax kam fiy nekkal mën naa bëgg loo xam ne bokkut ak na war a demee waaye dangay ngay seet la nga fa war a nekk nga nekk ko inni jaalun fi l xalifa xalifa mooy nit rek kon boobu soxlay adduna yaa ngi xew-xew adduna yaa ngi da ngay dem ci jotaay boo xam ne bii bu ñu fa séddalee woon ab kaamil du taxaw ay xuffaas ña nga fa bu ñu fa doon sarxaa jawaahirul iklil bii ñu xam di jàng la fiq dana bari ñu dégg lool dana bari ñoo xam ne fàttaliku nañ ca dana ca bari ñoo xam ne danañ ca jànge dama joxe message jaar yooyu rek waaye mu alxuraan ak xam-xam xam-xam yi rek waaye koo ci gis ma nga yore ab téléphone mën naa taseek loo xam ne man taseeguma ak moom mu ne ma ndax gis nga ko mu ne ko gisaguma ko mu wan ma mayet la ma la ma gisaguma ma wan ko ñu koy wanante ba jotaay ba jeex ña xewal xew-xew ya bañ di leen topp ba du suñ def lañu war a def ñoom loolu mooy seen liggéey ñu ngi yëg jëm xamu fu ñu jëm nag waaye seen yëg googee wurut tax ñun ñu bañ ñu toog leen seetaan te ba a yëg te ñun fa ñu yaakaar ne fa lañ jëm mooy fa gën ab jullit fa mu yaakaar ne fa la gën fa la fa jëm te mën na ko wóor ndax joxuñu suñu borom ma joxuñu suñu borom ku ko wàccut da nga geg da nga àgg fa doon wax kon boog ñiy sos xew-xew yi lekk-lekk ñu jekk na teel bi naan du mën a am mën a am nit ñi def ko seen yitte ba tëlatuñoo jaamu yàlla nañ xam ne ñooña looloo mooy seen liggéey lañ yaakaar ca lañ ko yaakaar xaw ma fu mu jëm ñoom waaye ñun liñ yaakaar nañ ko wut te moo gën a wóor te fi ñu koy wute yomb na fu ñu nekk nañuy xool bis ba ñuy tëral di ñu laaj te ñun dong ñooy tontu bis ba ñuy jàngaloo suñuy téere te ñun rek ñoo koy jàng te foofa mooy gën a xumb fi ma taxaw muy gën a leer te lu fa wayax dis na ko xam yawma tubla sarair lu way gàtt gàtt ëllëgu jàng na ko ñaare ci alquran wa wa taariq ñu bari fe wees nañ ko boo koy teree ba ko mën yawma tubla saraa'iru famaa lahu min quwwatin wala naasir fekk yàlla nga wax ak bokk yi su boobaa yàlla du laaj foo faroon fa ida nufixa fi suuri fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun duñ duñ laaj noo sant duñ laaj koo àndaloon léeg-léeg nga dégg ko ne man faruma fenn da koo biralul waaye ku faru fenn amul benn mu firi mu far ci xisbullah wala mu wala mu far ci xisbu sheytaan ala inna xisba allahi humul muflihun ala inna xisba sheytaani humul xaasiruun yàlla na yàlla defal dégg ak topp te wutal ñu wéttal yu mat wéttal bokk yi ñaari béjjën ci nag wala ci xar wéttalante wuñ mën naa am ñu bokk fu ñu jógee waaye kenn ku nekk fu mu jëm léeg benn ba jub xocc léeg benn ba dëng jëm suuf kenn jëriñul moromam dara dañoo ànd nii rek bokk na ci nag bi te bala moo neex xam nag wa dee la leen boole woon nekkatu fa tàggoo bu ñaaw la ñuy tàggu bii ba jën mën naa nekk ci penk bii ba jën dem ci sow ndax dañ koy far kii far ko jëme fee kee far ko jëme ne ñu tàggoo waaye yàlla ñu yaxal defal ànd bi nga xam ne mooy ànd bi ay gët ak bakkan ak làmmeñ àndandoo ak cër yi ne ci yaram bi yépp nga xam ne ñooy bokk di dund waaye bu ñu demee ba day dikk itam ñoom la ñuy bokk sulandoo kon loola mooy dëgg suñu leen di dekkal ñoom lañuy bokk dekkal su boobaa nag ñooy layoog wàcc ba xam xisbullahi la toppoon wala xisbu sheytaan boo nee xisbullah nag ci yenn réew yi ñu tiit mooy li alxuraan di wax ne dalika bi anna allaha mawla allazina amanu mooy ñu ànd ak yàlla rek mooy ñi nga xam ne fa yàlla joxañ lu mu metti metti fa la ñuy féete soo ko waxee ci réew rek léeg-léeg ñu ne ñu joxañ ko ne xool leen ko mbar daa bokk ci xisbullah kuñ ko wax nga ne ma ci wax nga musiba euh, su ko defee cër ya yow yu ma wax ne ñoo àndoon bi ñu dund ba ba ñu dee su boobaa seere yi waajal lañuy doon bu ne lu tax ngeen di ma seeree mooy alxuraan di wax ne yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaluun ñoom ñëpp kenn ku ne day taxaw euh, bu waa ji ne wa qaalu li juluudihim li ma shahidtum alayna lu tax ngeen di ma seeree lii qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shayin yàlla mi ñu bind bind yàlla mi ñu bindoon bind la kat moo ñu wax loo faaw ñu wax dañ cee am ndigal bis boobu nag ku ko tegu ci kanamam di ko di ko bàyyi xel di ko baal xel lu ko soob mën na koo def waaye mi ngi ñëw te bis bu jant bu fenk nit dox gën koo jege yàlla noonu yàlla dafa dëgg topp te musul ñu seytaane ak pexeem yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin